di kërug jaamukatu yàlla di kërug jàngalekat waaye di kërug yarekat mu di soxna Moominatu Mbàkke bint Cheikhul Xadim jàmbaar ji nga xam ne ba mu ko wuutoo ak léegi tànkam mi ngi ko teg ci siratal mustaqim waaye dundal daara ji dundal bokk gi mu di soxna gàdd buso ànd ak ay rakam di soxna maam Fati ak soxna maam buso ñuy ñaan sun borom yàggal leen fi lool te dolli seen wér ñu fas yéene toog fii ngir wootel ko bis boobu nga xam ne ñaar fukki fan ak juróom benn lay doon ci kori wi yemoo ak fanweeri fan ci weeru tubaab di doon bisub dimaas di amee ci këram gii nga xamante ne bii fi la nekkoon di jaamu yàlla. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. noo ngi leen di nuyu ci turu sëriñ Omar Bousso muy xalifa sëñ Mbàkke Bousso di leen yëgal bis bu tedd bu mag bii nga xam ne bis bu ñu xam la soxna bu su di ko taxawee di ko di ko defal soxna Mominatu Mbàkke sunu maam. ñu di leen xamal ni nag nañu ko daa waxee rek mboolem njaboot gi aju ci sëriñ Mbacke Bousso ci tuuru sëriñ Omar ñu ngi ko yëgal ñépp di ko yëgal bépp taalibe ak fu mën a nekk te aju ci kër sëriñ Mbacke di ko yëgal it bokki Mbusoobe yépp yi nga xam ne ñooy kër sëriñ Mbusoobe ak kër Saa Bousso te sëriñ Bousso Bangagne nekk ca bopp ba di ko yëgalit mboolem mbokki dëkkandoo yi ñuy ñaan nag soxna Gàdd mii koy taxawee sa borom bàyyi ko fi te mu yàgg koo taxawee ànd kook rakkam yu tedd yi soxna Bali ak soxna Maam Fati ak njabootu Bousso bi gépp ak njabootu Mbàkke gépp ak njabootu Daaru Musti gépp ñu ngi yëkkati kàddu ci tuuru mbooleem njaboot gi nga xam ne ñoo aju ci kër soxna Moominatu Mbàkke mu Seexul Xadiim ñu ci di ay sët ak ñi nga xam ne ñoo la yàlla boole ak moom ak bokk ñu ngi fàttali bis bi nga xam ne mooy bis bi kenn dul fàtte muy bisu soxna Moominatu muy koo xam ne bi ko yàlla jagleele Sëriñ yi di waajuram yàlla daf ko mayoon may boppam gu mu sequtoon ak kenn tolluwu ca woon ak kenn te ñëpp xam ko ndax kenn ku nekk la nga doon ci moom wala lam doon ci yow dara musu cee des ci wetam ñëpp la féete woon fam leen war a féete ñëpp la joxoon cër yam leen war a jox kon suñ ko dee defal bisam ñu di ko fàttaliku di ci sàkku ay ñaan képp koo xam ne làmboo woon nga ak moom diggante boobu jaadu na warteef la nga fàttaliku soxna soosu ñaanal ko te ñëw ci bisam bi te jëf ca la nga war a jëf ñu ngi koy yëgal ñëpp bi fi jógeeg léegi nag yàgg na yàggul waaye nag ku ne xam na ne soxna barakatu mii fi nekk tey ak rakkam yu baax yi soxna baali soxna maam Fati ak sëtam yii nga xam ne ñoom la bokk nekkal ci kër gi jaboote leen ku ne xam nañ ne day soxna si gannaawam ak njabootam téyal nañ ko gannaawam ñu ngi koy yëgal nag ñëpp bàyyiwuñu kenn kër Cheikh sëpp kër taalibe Sëñ Tuubaa yëpp kër bokk bu soobe yëpp kër bokki mbàkkeem yëpp kër bokki ñaxalam yëpp ñu ngi leen koy yëgal leen ci woo ci turu soxna si ñu ngi koy yëgal président de la république Macky Sall ak njabootam yëpp di xam ne bisub soxna see bisub réew mi kon ñu ngi ko koy yëgal bu baax baax a baax. Euh, ñu ñëwaat fii nag tey ci bis bu ñu daan def di ko defal suñu sëriñ suñu maam soxna moomi xaadim mu tombeek dimanche trent ci weer wi ñu nekk ñu di ci woo ñëpp nag di ci woo. mboolem euh, daayira sët yi ak fu mu mën a sotoo ci yoon murit ñu ngi leen ci woo di ci woo ak di ci soññ mboolem jàng jàngalkati alxuraan yi ak jàngkati alxuraan ak jàngkati xasida yi ndaxte bis bii mënee su cee def wala mënee su cee wax lu gënal soxna moom yi jàng alxuraan xasida kon nag ñoom tamit ñu ngi leen ci woo di leen ci soññi di ñaan yàlla suñu borom mu yóbbu ñu ci ak jàmm ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci ak alhamdulillahi rabbil alamin maa ngi yëkkati sama kàddu ci turu turandooy soxna Mominatu Mbàkke yëpp tàmbalee ko ci soxna moom mi Mbàkke moom sëñ Abdou Khadir Daaru Salaam ak soxna moom mi Mbàkke moom sëriñ Saalihu soxna moom mi Mbàkke moom sëriñ Fallu soxna moom mi Mbàkke moom sëriñ Abdoulahi soxna moom mi Mbàkke moom sëriñ Abdou ñu gën koo xam ci baax baay ak soxna moom mi Mbàkke moom sëriñ Soaybu soxna moom mi Mbàkke moom sëriñ Murtada ñoom ñëpp ñu ngi ànd jël seen kàddu ak seen ndigal teg ko ci loxol soxna moom mi Mbàkke Lappe mi nga xam ne mooy jëwriñi turandooy soxna moom mi Natu Mbàkke yëpp ak mbooleem turandoo soxna moom yi bàyyi wuñu wenn turandoo ak képp koo xam ne yaroo nga ci kër gi ñuy wax ne ñoom day bés bi nga xam ne ci la ñuy fàttaliku seen sëriñ seen bàjjen bi ñu amul lu dul moom bés boobu moo dellu siwaat di dimanche incha allahu taala ñaar fukki fan ak juróom benn ci kori wi wara a dëppoog le 30 juin fii ci kër soxna Mominatou Mbacké ñu bëgg nag nañu ko daan defee moom yi mu nekk xam ne fa daan féete fa la ñu ko féetalee ñu di ko soññ mu soññ yam daan àndal ñu ànd góorgóorlu ci liggéey bi nekk ci kanam soxna gàdd ak ak ak ay rakkam ànd ànd ak njaboot gi ak mboolem koo xam ne yaroo nga ci kër gi ñu ngi lay soññ kenn ku nekk fa nga daane nga nekk fa ñu fas yéene liggéeyal seen maam seen bàjjen seen sëriñ nañu ko daan liggéeyalee te ñaan yàlla yóbbu na ci bés ba ak jàmm ci barki sëriñ tubaa ñu ngi woo ñëpp ak mboolem daayira boo xam ne aju na ci kër gi rek ñu ngi lay woo nañ ko daan defee ñu ànde ko noonu incha allahu taala bu ñu xëyee yendu ci jàngum alxuraan mi ak xaside yi ak salaatu ala nabi ak tatagal gan ñi ànd ak ñoom ba tàkkusaan ñu jébbale seen ab liggéey ñaanaat yàlla fekke ko déwén. mbokki jullit yi maa ngi leen di nuyu nuyoo bu tedd bu bàyyi ko ci sëriñ Abbas xalifa borom Daaru Mooti ak sëriñ Moustapha Absa xalifa sëriñ Modou Awa Balla Mbacké ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare euh, di leen woo ci bis bii nga xam ne mooy bis bu soxna moome euh, di wax ne waa Euh, soxna moom i ñëpp war nañ koo liggéeyal ngir li mu doomu Serigne Touba waaye ñoom dañ cee am beneen sas mooy seen sëriñ si nga xam ne mooy seen kilifa soxna gàdd di sa soxna baali soxna maam Faati ba ci sëñ seeni sëriñ lañ moom mooy seen kilifa euh, ñu am ci beneen sas itam mooy sonn gi mu sonn ci sëñ Modou Balla nga xam ne ataay ji sëñ Modou Balla daan naan sax soxna Seck ko daan tàngalal te ñoom ñaari ñëpp kenn ku ne nga am am nga ko ataaya waaye fonk gu si fonkoon sëriñ bi moo tax moo ko daan tàngalal ataaya ci loxol boppam loolu weneen sas la ci beneen ba ci topp nag mooy mbaaxu boppam gi nga xam ne dund na ko Daaru Musti ba ku ne Daaru Musti ku ne mbaaxam googu agsi na ci yow loolu lépp nag ay bor yu nga xam ne des ko war a fay sëriñ bi nag nee na moom su manoon mooy ñëw fayal ñëpp waa bi mu ko mënut itam ah mi ngi soññi ñëpp ci ñu ku mën a ñëw ñëw Euh, ku mën a ñaan ñaan ku mën a jàng alxuraan nga jàng alxuraan euh, taxaw ci bis bi euh, bu soobee yàlla njabootam ñu jox na ndigal njabootam yëpp ñëw fi toog lu ñu wara a def te kenn def ko ñu def ko lu nar a yàqu ñu defar ko waaw ànd kook suñu ànd kook mbokk yëpp ndax sama moom ñëpp ko bokk waaw ñëpp ko bokk waaye bu soobee yàlla kenn duñu ci man waaw ñoo déggandoo kàddu yi fa tabarakallahu bis ngi noonu war doon dimanche fanweeri fan ci weeru tubaab yemoo ak ñaar fukki fan ak juróom benn di amee fii ci Touba ci këram gi nga xam ne fi la nekkoon di jaamu yàlla kon nag ni ñu ko déggee jiital nañ ci njàngum alquran mi fu daaray alquran mën a ne ci biir réew mi wala bitim réew rawatina daara ji ne ci jumaa ji ak rabita bi nga xam ne eh, Serigne Khady jaxate moo nekk coordinateur bi ñi ngi ko yëga sàkku ci moom mu yëgal ko daaray alquran yëpp luñ mën a jàng ci alquran ñu jàng ko te yéene yool ba soxna Mominatou Mbacke bintu Cheikhul Khadim waaye mboolem ñi ngi leen koy soññi di ko ji tàmbalee nag ci sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ Sohaybu ak mboolem kuréelu xasida bu ne ci réew mi ñi ngi sant ñi ngi lay sant njàngum xasida loo ci man nga jàng ko def yéene yool ba soxna Mominatou ak bokkam yam nekk yam nekkal fawfee ñi ngi sant ñëpp nag di soññi mboolem turandoo yi di soññi mbooleem daayira yi waaye nag di soññi mbooleem askanu maam maharam bàyyi wuñ kenn mbooleem njabootu maam Balla Aysa gi bàyyi wuñ kenn mbooleem seexi sëriñ Tuubaa yi ak fu ñu mën a ne ñoo ngi leen di woo